donc bon, c'est prévisible. mooy comme lu ñuy wax rek mooy ci football bi muy ci basket bi je pense que il faut que suñu autorité yi gën ñu jàppale ñu gën a professionnaliser championnat yi euh, du coup comme ça genre ñu am jour yu dem ci digg année bi parce que chaque fois loolu moo ñuy pénaliser mooy championnat bi dafay yéex léegi da ngay am jour yoo xamante ne dañuy dem ci digg année bi donc day pénaliser équipe yi donc au lieu loolu. te du loo xamante ne day day renforcer suñu championnat tey jii bu ñu sañoon mooy mu am ñu dem am ñu toog tamit ñu naw bët pour nga toog tamit foog ñu jox la raison bu tax nga toog ndaxte à part bu ñu waxee sport bi tamit c'est c'est c'est un business tu si lépp la am genre on est dans le sport moderne te loolu moo am fépp donc euh, tey jii nii booy xool ñaari côté yëpp je pense que aujourd'hui foog suñu autorités yi gën ñu jàppale si. le business part comme ça ñu gën a mën a renforcer équipe yi joueurs yi gën a am envie toog you know